leen ziar bu baax a baax yéen ñu ànd ak ñun di ñu seetaan ci seen site bi di 28 Pro TV euh, toute l' actualité en image mbokk yi ñu ngi am mbégte ànd ak yéen tey ci événement bu mag di bésub diine di bésub lislaam waaye tamit di bésub euh, yoonub murit ci nga xam ne moom la ñuy fàttaliku nag muy Cheikh Abdoul Khadir Mbacke imaamu imaam yi nekkoon ñeenteelu xalifa Serigne Touba Khadim Rasoul tey nag moom la 28 Pro fas yéene ànd ak yéen di leen won ak di leen dëgtal ci ay kàddu ak ay image yoo xam ne nii jëm na ci jëm ju sell jooju nga xam ne euh, lii nga xam ne moom moo dox ci digganteem ak diine ci digganteem ak lislaam waaye ci digganteem ak yoon bi nga xam ne rawatina nag jumaa ji nga xam ne jiite na ko ay at nga xam ne laataa muy nekk sëriñ tubaax Xaadim Rasoul ci diiru fukki weer ak benn euh, barab bi nga xam ne moom moo nekk suñu gannaaw fii la ku tedd ki tëdd euh, moom ngeen fi gis noonu di ay ziar bokk taalibe yi ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge fu nekk ci réew mi ñëw fas yéene ziar di fi dem sàkku ñaan di ko ñaanal moom itam suñu borom dolli ay leeram tas ñu ci barkeem ci barkat euh, Serigne Touba Xaadim Rasoul mbokk yi 28 pro nag bu fi jógee daañu leen toppal njaboot gi yëpp nag muy ki ko fi toogal tey di Serigne Cheikh waaye tamit li nga xam ne moom moo topp ci ñoom image ak ay ci mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fa ñëw di fa ziar waaye tamit ci ñoom ni ñu doon doxalee ak nañu doon dundeek moom bi nga xam ne ni mi ngi fi nekk diirub li muy nekk nag ñoom yëpp mbokk yi 28 pro daanu leen toppal xibaar yi daanu leen toppal information yi daanu leen toppal image yi ci li nga xam ne moom moo fi am fii ci Touba ci bés bi nga xam ne tey yemoo talaata ñetti fan ci weeru sàtt mbar ñu koy fàttaliku kon mbokk yi 28 pro daan leen ci indil image li nga xam ne moom moo fi xew tey fii ci Touba jërë ngeen jëf. am mbégte bu baax ànd ak yéen ci màggal sëriñ Abdou Khadre Mbacké euh, fii nag ñu ñëw nag euh, ñu ngi ñëw kër sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou Khadre waaye nag euh, fekk fii doomam taalibeem taalibe ci kër gi di sëriñ Jili ñu ngi koy ziar baax a baax Mbacké xanaa rek di taataan ay kàddu ci bésub tey bile lan lañ ci mën a taataane ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi ñëw di ziar si ak kuy dem luy yóbbaale. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي القدر الفخيم kon yéen ñi fi teew di waa Chic FM ñu ngi leen di nuyu bu baax baax ah, di leen siyaare ci bis bi bisu bi nga xam ne bis bu tedd la bisub xéewal la bisub ngëneel la bis boo xam ne daal lépp looy soxla ci àdduna ak alaaxira boo ko ci yéenee fas ko ci man nga man nga ko am ndax day bis boo xam ne Eh, ki koy defal day koo xam ne daa jug rek Sëñ Tuubaa wax ci moom lu yéeme muy koo xam ne daa gane àdduna garamu yaakaar naa ci histoire lim am lim am lim lim am ci histoire bëriwul di rek garamu kon eh, muy eh, muy muy Cheikh Abdoul Khadir Mbacké Cheikh Abdoul nag ay jikkoom moom mm, buñ ko doon lim yaakaar naa mooy jikkooy makaarimul axlaax rek loolu mooy sëñ Abdul Xaadir boo ko doon tënk daal ci talxiis mooy makaarimul axlaax sëñ Abdul Xaadir euh, lewet ga sëñ Abdul Xaadir tabe ga sëñ Abdul Xaadir euh, di dimbale nit ñi te yàlla tax nga xam ne euh, dafa waxoon àdduna da koy xaaj ñetti xaaj benn bi nit ñi benn bi nga jox ko yàlla li ci ëpp benn bi nag nga def ko noppalu waaye yaakaar naa ne li ëpp ci ak dundam yàlla la ko jox ak nit yi ak ak ak ñi nga xam ne mooy nit yàlla yi mooy mooy mooy taalibe yi kon nag eh, bis bi daal képp ku ci teew na nga wóor ne lépp loo ci fas eh, yàlla dana la ko defal ndax day bisu borom ngëneel day bisu ku texe ku ku ku bëgg texe nag dangay ngay ñi texe waaw kon nag ñu leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm ci teewaay bi nga xam ne eh, teew ngeen ko ci di di di di di di di di di taataan ay kàddu man nag maa ngi jégalu wax ji nag dama ko dama dama xaw a bett. waaw taalibe bi dikk boo ñëwee na nga andi eh, pas-pas fas yéene ni ko ni ko sëñ Moustapha waxee ci appel bi fas yéene taataan andi ak pas-pas bu mat sëkk fas yéene jëriñu ci ci ci ci sëriñ bi yaakaar naa ne eh, bañ indi ay caaxaan ak i fo ak lépp loo xam ne eh, bu bu sëñ Abdul Xaadir teewoon doo ko waaw loo xam ne bu sëñ Abdul Xaadir teewoon ta toogoon ni ci sawet ni ngay banque say tànk noonu eh, yaru na nga indi ab yar ak i teggin ak pësee bu mat sëkk fas yéene boo ñëwee eh, sa eh, lépp loo xam ne am na ci bis bi muy eh, jàng alquran ak ak ak jàng xasida ak salaatu ala nabi ak lépp loo xam ne ak ak di joxe ay ay xéewal ak lépp loo xam ne dana dana dana jëriñ nit fee fale fale ca àlaxira nga nga nga jéem ko nga jéem ko cee def waaw boo yaakaar naa boo boo ñibbee Eh, boo ñibbee yaakaar naa da nga taataan ci sëñ bi jikko joo xam ne dana la mën a yor àdduna ak alaxira waaw waaw benn jikko boo jël ci seen Abdou Khadir rek nga xool ko jëm ko roy eh, boo ko maîtriser bu déwénee yaakaar naa dana la amal njëriñ àdduna ak alaxira waaye nag li bon mooy nga ñëw di fo di caaxaan nga xam ne na nga ñëwee woon yaakaar naa ne lor ji moo ëpp njëriñ bi loolu yàlla na ci yàlla musal loolu amul solo kon nag képp kuy ñëw daal euh, wut seet a tax a wut nag euh, na ngay def ba am mooy nga sonn ak pësteef yaakaar naa loolu mooy tax nga mën a am waaw li des nag nga bàyyi yàlla. waaw kay jërëjëf. <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yu ni topp ci seen euh, rajo Zik FM di ñu topp ci. 28 euh, Pro euh, di site internet boo xam ne boo am solo la macha allah taxawaayam ñëpp ràññeeko ko ñi ngi fii nga xam ne moom moo di ci kër Serigne Salihu Mbacke ibnu Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdou Khadir Mbacke. Euh, ci bis bu am solo bi nga xam ne tey ñi ngi koy amal muy ñetti fan itam xarit di bis bi nga xam ne ca la jàmbaar ja Serigne Abdou Khadir Mbacke feeñee woon jamono. Euh, sëriñ Saliou mii nag ci wàllu communication bi sëriñ bi dénk ko ko macha allah euh, boobaak léegi mu ciy def liggéey bu am solo euh, tey nag moom la ñu ñëw fekk si fii nga xam ne moom moo di ci këram fa yéene ànd ak moom gis nañ macha allah kilifa yi ak ñu baree bari ñëw teew fi su ko defee rek xam naa ne yan kàddu sëriñ bi rek ngay barkeelu ci sa bisub maam ji nga xam ne moo di jàmbaar ja sëriñ Abdou Khadir Mbacke sëriñ bi ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi ñuy déglu dañuy seetaan ñu ngi leen di nuyu fii ci daara Sëñ Tuubaa ji laa ko mën a waxe mooy fii nga xam ne fii la sëriñ bi dayal ñu nekk fii di ko fi liggéeyal màggal gi nag comme ni nga ko waxe sëriñ Abdul Xaadir moom Cheikhul Khadim lañ koy defal doon doom yi tubaar Touba rek doy na sëkk waaye ci biir loolu Sëriñ Abdul Xaadir yàlla dogal ci moom li mu dogal mooy ni ni ko ñëpp yi waxe maam Ceerno Ibrahima Faati bi bi sëriñ bi ñëwee dane ko nang ko joxe aw tur te nga béréjal saw yoon béréjal mooy na nga ko ndax ko gudd mooy bari fu mu jàdd ndax dane ko fépp foo jaar ak képp ku la gis jéggal nañ loole nag suñ ñëwee ba ci bisam mu ami wàccaay yu rëy rëy comme ni nga ko waxee dañ ciy wax ci ñaar benn bi mooy ñun dund giñ koy dundal yëg-yëg biñ ci am mooy doomi sëñ Tuubaa jum mën a doon bisam su ñëwee dañ koy dundal rawatina ki nga xamante ni ci moom lañ feeñe muy sëriñ Abdul Xaadir moo tax def nañ ci wàccaay yu rëy ci sunu wàllu bopp ci sunu biir kër bi ñëwee it woote nañ tey la bis bi mbokk yëpp ñëw nañ mbokk yi nag day ñoo xam ne mënuñ leen a fay ak cant lañ leen ameel yàlla mi nga xam ne moo amuk pay te comme fay doo jeexal dara yàlla na leen fay ndox ñëpp ñëw nañ wax dëgg yàlla te amu ci kenn koo xam ne damay fay si bor bu ma ko lebal ñu ci baree bari may dañ may sagal sargal ma rek ngir yàlla jëmmi sëriñ bi ak jëmmi sëriñ Abdou Khadir waaye bari na ñoo xam ne sax c'est daanaka woote nañ wooteeti te dem ma fi loolu nag ñoo ko gënee kon ñu ngi leen sant di leen ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla fay leen aw yiw yàlla fay leen bisub jokk bokk li ñuy seddale ci bis bi yàlla bu leen ci kenn ëppale bis bi nag bi ñu xëyee liñ ci war a def lépp def nañ ko mooy jàng nañ alquran jàng ay xasaayit def ay bernde waaw ñaan tàllal sunuy loxo lépp lu ñu fi def rek yàlla jotal ko ci Serigne Abdoul Khadir te taas ñu ci barke barkeem ba mën a jariñ ñiy dund jariñ ñam ña cay bis bi nekk yomal xiyam ak ñëpp bépp jullit boo xam ne nekk na ci àdduna yàlla dimbali la ci bisam bii bis bi it dañ ci profité rek di ci waxaale loo xam ne Euh, actualité la jamono laaj na ko ñu war cee waxaale tuuti rek mooy fii jamono toll mel na ne jamono ji tali bi xaw naa tàng tali bi moom xaw naa tàng lool ñu ñëw ba ci bisub Sëñ Abdou Khadir war nañ fee dëkk sunuy loxo ñaan ci yàlla ci yërmandeem mu wàcc yërmande ci réew mi ba accident yi daal yàlla na wàññeeku waaw ñu ngi ñaan yàlla ci barke Sëñ Tuubaa accident yi moom yàlla na yàlla na wàññeeku bu baax a baax jeex moom lépp lu koy def yàlla la soob lu bari it yàlla la soob waaye ñoo ngi ñaan yàlla ci barke Sëñ Tuubaa ci barke Sëñ Abdou Khadir mii ñuy defal bis bi mu wàññi ko ba jeex takk li nga xam ne ñoom ñoo ko yore muy e, ñiy dawal oto yi ñu ngi leen di ñaam nañ nañu xoolaat yàlla mooy dogal de waaye sabablu day am ndax kuñ joxub oto oto boo gis boo ne wax nañ la li nga ko war a dawale léegi ñu gën koo respecté rek te tey gën yërëm nit ñi ci loraange yu bari yooyu loolu moom loolu rek lañ ciy wax ñu ngi ñaan ci bis bi loola wàññi beneen côté bi nga ma laaj nag ci wàllum liggéey bi nga xam ne ginnaaw bi ma nuyoo sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy kilifa kër Serigne Abdoul Khadir niñ koy waxee Serigne Moustapha di jëwriñ ji waaye Serigne Sidi moo yor liggéeyu màggalu Serigne Abdoul Khadir def ay commission yu baree bari kenn ku ne mu lay liggéeyaloo ñun mu jël communication dénk nu ñu ànd ceeg mbooloo mu bari di ci liggéey comme niñ ko daa defee at yu yu weesoo ndax yàgg guñ ci soo xoolee ñetti at rek lañ ci def niñ ko daa defee lañ ko defee rek bi mu jubsee wàccaay wi ci war lépp def nañ ndax barki démb lañ mujjee amal suñ ñeenteelu jataay ndax defal nañ Daaru Salaam dem def nañ fa ab table ron defar ko waa kër sëñ si Assawaalo ñu defal leen taabaroon boo xam dañ leen ko jagleel ngir moom lim seqoon ak sëñ Abdul Xaadir loolu daa bokk ci wàccaay yi nga xam ne liñ ciy jublu mooy yaatal màggal gi ba kenn ku ne mën a gis sa bopp ci sëñ Abdul Xaadir biñ ci jógee dem nañ gade ci waa kër sëñ Baara Ñang jagleel ko sëñ Baara Ñang sëñ Abdourahman Ñang dalaloon moom itam lu mel noonu lañ war a def fa wàccaay def fa taabaloon bu am solo boo xam ne ñëpp gis nañ ci seen bopp. bañ ca jógee maam boo xamante ne dañ koy jagleel doomi Sëñ Abdul Xaadir boobu nag dañ koo jox soxna May moom Serigne Abdul Xaadir ñu gën koo xam ci soxna May Aas doon ko defee kër Serigne Abdul Baaxe foofee dañ fay taxaw tuuti ndax soxna May mi ñu ko jox di doomi Sëñ Abdul Xaadir waaye Sëñ Abdul Baaxe ci boppam rek mënoon nañ koo jagleel bis boobu ndax. moom Sëñ Abdou Khadre dafa bari lu leen lu leen yàlla boole ba ci soo xoolee bi mu fiy jógee màggalu Sëñ Abdou Khadre la tombeeloon waaw loolu it dafa doy sëkk ab junj moom itam ñu koy ñaan yàlla yàlla gën ñoo tax ci barkeel yàlla gën ñoo tawféexal ci ay yërmandeem ci barke Sëñ Tuubaa bañ fa jógee ñu def conférence yi nga xam ne ñun sët yi ñoo koy def waaye loolu lépp dafa bokk ci plan bi nga xam ne communication da koo tegoon su bis yooyu ñëwee ñoom ñoo koy sur ñoo koy ñoo koy gunge ñoo koy organiser ñoo koy yaatal ba ñëpp man jàng kon barki dem def nañ conférence petit statisticien bu xaajar yi wax dëgg yàlla àdduna bépp gis nañ tabaarkàlla nañ yaatu noonu lañ koy toppee nag tey la màggal gi suba la ñuy def cérémonie mu mel na nag loolu dafa amoon ay wàccaay yu rëy rëy yoo xam ne dañ koo séq ak réseaux sociaux yi ñu jéggal ma ci tubaab bi ak rajo yi ak tele yi nga xam ne ñi nga xam ne ñiy bind ak ñiy wane ak ñii déglu day mel ne ñooñu ñoo séq communication kii day bind kii di wane kii di dicté nit ñi di dégg mooy bind ki li ñu naan écrire ak rajo yi ak tele yi ñooñu fenn fu ci ne daa am fu ñu fa jëloon ne leen ñëw leen jàppale ñu ci communication bi cité ay nit waaye ñoom itam kenn ku ci neen lañ la santoon nañ ko bëggee woon defe nga ko noonu ba def ci loo xam ne kawe na suñ jot waaye ci biir loolu dañuy santaat ñi nga xam ne jotuñ leen woon sax cité ñu def seen volonté bopp seen njàmbaare bopp lu mel ne 28 pro bi nga xam ne wax dëgg yàlla gis nañ ne boobu ba léegi mi ngi def ay tournée activités yu bari mi ngi koy def nga xam dañuy jékki-jékki rek gis ko mu koy def ci seen bu Khadir kooku ak njàmbaare moo ko may ak cofeelam ci Sëñ Abdou Khadir ñu ngi ñaan yàlla sit boobu groupe bi ko seq ba taxawal ko mu doon loo xam ni àdduna bépp dana fa àgg fépp fu site internet àgg bi fa àgg ñu ngi ñaan yàlla mu dem ba doon télévision ba sëñ Tuubaa Zik FM it comme li nga ma li nga ma laaj léegi rek ñoom itam seen taxawaay wax dëgg yàlla gis nañ ko bi màggal gi tàmbalee ba tey comme ni ko rajo yëpp defee waaye comme yaa fi ñëw danaa la wax seen taxawaay ne diglu naa ko yëg naa ko gis naa ko su ma ne gis naa ko mooy gis nan ko mooy sëriñ bi ñu ko doon liggéeyloo teg na ci bët ñoo ngi ñaan yàlla daal ci barke sëñ Tuubaa bis bi lépp lu ci waay yéene woon te jëf ko wala nga yéene woon ko te yàlla dogaloo ko lu ci mën a doon yàlla mi am fay yàlla na leen fay wax nag dañ ko mënewul moo tax ñoo ngi koy jégalu bu baax a baax di ñaan yàlla teel ko ay ati at mu ñëw rek gën a jaar yoon at mu ñëw gën a neex ne ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di waxee rek di neex di baax ba àjjana incha allah. seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ak ci màggal gi nga xam ne nii moom moo ñu fi dajalee ñu mbokk yi di màggalu Cheikh Abdoul Khader Mbacke. ñu ngi fi nag ci Touba Corniche fekk fi nag Serigne Abdou samat moom Serigne Modou moom Serigne Abdoul Khader. gis ngeen nii mu laxasaayoo ànd ak euh, mbokk taalibe yi dafay wane ne moom taalibe la ba tax na mu ànd ak ñoom ci gis nga déguisement yi laxasaayu nekk ak ñoom ci waañ bi ci toppatoo gan yi loolu moom mooy euh, li nga xam ne moom la baaxoo di def at mu jot mbokk taalibe yi nag wër ko xanaa rek ñu koy nuyu di ko ziar rek Mbàkke euh, te naa la bés bi doon na mbégte ci yow rawatina nag bi nga ñëwee bokk ak mbokk taalibe yi li nga xam ne moom mooy liggéey bi asalaamaaleykum wa maa ngi di nuyu bu baax a baax di nuyu waa site internet bi yëpp di seen wàccuwaay bu baax a baax di am mbégte ak kontaan bu baax ci seen yitte yi njàgg ñëw ci bisub sëñ bu Khadir bi bis bi it eh, berne la lañ ko tàmbalee te it akum njàngum alxuraan ak xasida eh, di wax ne dara warulu ko lu dul liggéeyal sëñ ak Cheikh Abdou Khadir Mbacke li ma waxoon ñëpp yit mooy ñun amuñ lu dul maam Cheikh Ibrahima Fall eh, te suñ jëmm ji Cheikh Ibra Cheikh Ibra ko lal kon ku am lu dul Cheikh Ibra waroo maanaam li ñuy wax ne lu waay di woote dangay nuroog lu loola kon nag ñun dañuy woote Cheikh Ibra te te jëmmam jooju moom lañ ñaan yàlla nuroog moom ba tax na sama mbokki taalib yi ak ñeneen ñi nekk ci bitti yëpp Euh, maa ngi leen di sant bu baax a baax ci laxasaay yi ak berna yi niñ ci taxawoo ak liggéeyal sëñ Abdou Khadir niñ ko defee maa ngi leen ci am mbégte di wax na it li sëñ Touba waxoon maam Thierno ne ko dama nga tuddi gan googu euh, te nga yéexal saw doxin dem beeg dikk bi ko dajal jéggal nañ ko maa ngi ñaan ci barkeb sëñ Abdou Khadir mboolem taalib yi fi teew muy daayira yi nekk Ndakaaru surtout waa daayira Touba bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñu bokk ci loolu ak mboolem taalib bu teew ah, di sant ñepp di wax ne jërëjëf Serigne Touba jaaraama Cheikh Ibrahima Fall ah, Serigne bu Abdou Mbacke moom sëñ Modou Abdou Khadre yàlla na fi yàgg loolu te dañ tàmbalee ci Serigne Touba yem ci Serigne bi bañ a roy kenn ko jur maam Cheikh Ibrahima Fall ñun suñ jëmm ji Cheikh Ibrahima moo ñu gënal lépp kon nag ci moom lañ fas yéene roy ba keroog ñuy faatu. di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. Ahmadou Bamba kenn la. ay ndaw ñoom ñoo nekk sa gannaaw. waaw li ma leen digal moom mooy ñu sax ci ak taalibi rek. tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi ndax bu dee gone yi nga xam ne ñoom laa àndal di liggéey sëñ bi sama diggante ak ñoom yàgg nañ parce que ñii ngay gis ba may ànd ak ñoom booba yaakaar naa ku ci taxawu man dooma yem fenn fudut ci kii euh, te gis nga jamono bi dañuy bàyyi seen yitte yëpp ñëw di liggéeyal sëñ Abdou Khadir Mbacke bu fekkoon ne sëriñ bi defu dara ci ñoom wala amuñ dimbalu sëriñ bi biñ ñëw di liggéeyal sëñ Touba ñoom ndaw ñi nag la ma leen di digal mooy ñu sax ci yàlla sax ci ak bala ñu may defar dara li ma leen di faral di wax taalibe yëpp muy nit bala mu may defal dara na ci jiital ay way juróom ba pare bu leen defalee teraanga ba noppi ñu door ma koo defal ndax nit ki mënut a defal ab sëriñam te jiitalu ci ay way juróom loolu it ñoom ba ma leen ko digalee ba léegi ñoom ña ngi ñu tàmbale ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi waaw borom Touba. yaakaar nan borom Touba. sant leen borom nan borom Touba. doyloo leen nan borom Touba.